ubbee suñu ay jonte nag ci kan bi ek nag dinañ ko amal foofee ca stadium Charles Konan Banida Yamoussoukro à partir de 14h GMT ek ci noonee nag Gambie bi nga xam ne laale woon nañ wala boog ba ñu mujjee laale ci atum 2008 la woon luy soxal qualification mondiale 2010 foofee ci Afrique du Sud ñu kat témboo un but partout ek loolee mooy marqué kat euh, fin bu génération bu ñoom El Hadj Ousseynou wala boog Fadiga. ginnaaw gi téem boobu boobee nag ndam bu rëy la woon pour les scorpions waaye dinañ amalaat jonte nag ce lundi ek ci noonee nag Gambie nañ leen bàyyi xel bu baax ba ndax kan bi weesu defoon nañ exploit seen première participation kan ñu dem ba ci quart de finale yi. ki tax ñu amal exploit bu ñu mel nag mu joyante mbir yëpp ndax Gambie newoon na ci jafe-jafe seen football newoon na en retard muy Thomas Saintfiet waaye nag mu wóolu ci ay ndaw yu xarañ ko ci ma ni Moussa Baro bi am ne ñu koy gën a ràññee foofee ca Bologne en Italie laata muy toll ci Arabie Saoudite club biir mooy Al ki jàpp leen sax moom lañ fa jàpp comme benn star bi nga xam ne vraiment dafay boot équipe bi waaye ñi nga xam dinañ ko gunge nag mën nañ ci lim zone bi informé nañ jàppaleen ma ngay doxal foofee ca Metz di wane boppam moo même ci kan bi weesu sax benn révélation lu woon wala artificier comme ni ngay waxee muy toll fu ko neex di di toccaar yi waaye nag sans oublier le jeune Yacouba Mité bi nga xam ne joueur bu Newcastle dañ ko prêté foofee ca Feyenoord pour ainsi dire Gambie kat équipe la bi nga xam ne nag voilà match bi du yomb dara waaye Sénégal comme ni ngay waxee mooy que kat depuis kat kan 2015 suñu match ouverture dañ ciy génne ay ndam kon loolee kat lañ bëgg mu. ñu wéyale ko ci noonu nekk les champions d'Afrique pourront compter sur un Sadio Mané en forme sans oublier le roc de Al bi nga xam ne balaa ñoom gëj nañ encaissé ak forme boobu la indaale ci tàññe bi en compagnie du roc défenseur de Nottingham Forest mais Moussa Niakhaté pour indiquer Sénégal voilà nag pour nga bëtt défense bi nag du yomb dara ek aussi kenn mooy Edouard Mendy ci kaay muy rassuré ndax moom lañ tàmb ci mois bi weesu nii góor bi gën a xarañ foofee ci Saudi Pro League bi. ak jeunes yi nga xam ne dinañ découvrir nag li nga mooy kan bi ko ci mani Lamine Camara Moussa Niakhaté Ndiaye et sans oublier joueurs yi nga xam ne am nañ ñeenti sélection wala boog ñi ngi def seen ñeenteedu kan muy Pape Matar Sarr joueurs yi nga xam na nag ñoo gën a capé ci tañeer bi mooy Sadio Mané Gan gay Cheikhou Kouyaté ek jàpp leen bu baaxoon match boobee du yomb ndax kat mën naa ne Gambie seen bakkel lañ ci teg ndax ñoom dér bi kat lañ koo jàppee ginnaaw ci exploit bi ñu amoon ci atum 2008 loolee kat nee nañ lañ bëgg mu amaat waaye ci leer ba leer mooy que kat Sénégal bi nga xam actuellement vraiment une équipe redoutable ndax kat nga nekk champion d'Afrique yombul dara ndax match booy jëwante final lay doon kon match boobee xaale nga sa lundi à partir de 14h GMT.